salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki internet yi rawatina yéen yi nga xam ne yéen ay béggee seen site bu ma go di senego point com ginnaaw bi ñu àndee ak yéen saison daaw bi ngeen gunge ñu ci làmb ji ba mu jeex amuñu seen fay dañu leen di gërëm di leen ndokkeel waaye yàlla miy buur def na ni que saison bi ubbi waat na xanaa di ñaan yàlla ubbi ko ci bismillahi rahmaani rahim ànd ak yenn comme ni ñu àndee woon ak daaw dama wax ni soo bëggee làmb ju neex ci site internet yi bu la yeboo nga jubali Sénégal qualité HD bi fa nekk amul fenn boole ko ay reportage yu làmb yu am solo tey nag ma dellu si ak yéen seen émission bu mag boobu coow li ci làmb ji dalal ci ndaanaan xale boo xam ne dama koy wax saa su ne naan ko man ak yow ñoom ba patandoo ndax bi ngay dajee ak Zarko fii ci terrain église fii la ma fekk bi ngay daje ak Lassander fii la ma fekk sa diggante ak Nandi Fall fii la ma fekk yàlla def ñu ànd duggandoo arène muy xale boo xam ni. digganteem ak Tafa Boy Bambara rek doy na comme exemple waaye digganteem ak Laay Gaynde digganteem ak Amadou Camara ñu demoon ba tuddee ko le génie de l'arène taakusaan daal jot mu naan ànd ak le grand doyen El Hadj Ibrahima Ndiaye bàyyeekoo sàkku xam-xam ànd ak ñoom saalum ñëw estat bàkk ba mu neex bëri ba mu neex di naan yorul dara ragal yorul jikko joo xamante ne que day jël avance ba noppi ñëw estat di niil. kooku mooy kan la grand champion Pape Mor bu sàkku xam-xam Pape Mor Lo ngi lay nuyu. waaw buur ñu ngi lay fay nuyu gaay yëpp Amadou Cheikh gaay yëpp di wax gaay namoon nañ leen xam nga namoon nañ ñëw mais ñoo leen raw quoi. ñu ngi nuyu ñëpp nag. di siyaar ñëpp. Pape Mor Lo li njëkk def rek mooy attaqué sunu laaj bu njëkk Pape Mor tegale fi ay défaite dajeeg Tidiane Faye la professeur yàlla def mu jëlee ci défaite. daje kenn mooy Lac Rose yàlla def mu jëla ci defet daje ak Siteu mu demewaat noonu ñu jékki-jékki xëy na ana Pape Morone ñooy dem na Amérique est-ce que Pape Morone bi muy dem déception moo ko yóbbu wala dafa dem ne xaaral ma liggéey jot bu dellusiwaat. ok waaw c'est que xam nga làmb moom benn affaire boo ci nekkee boo demee ba xamu foo jëm da ngay ko te tamit làmb ak wér ñoo ànd quoi soo xawee jaga di tuuti mënoo ko booleeg di bëre quoi moo tax combat yu bëri yu ma bëri. sama dernière fin saison fin kii bi euh, sama dernier combat yi mu bëri yëpp ma xaw si am ay trop trop parce que dama doon bëri ak gaañu gaañu xam nga loolu moo gënoon tax quoi. sa ñetti défaite yëpp da nga gaañu woon. yee dama amoon gaañu gaañu bu métti mais quoi. sama sama mais benn défaite am gaañu gaañu war a faju ji bëriwaat mais tu préfères bëri ak gaañu gaañu ba mu ñetti défaite est ce que loolu yëngu na maanaam. c'est que benn instant da naan comme bi su ma comme daanu naa si bi su ma jëlaat balaa may dem naa am victoire quoi doo ko dem man noonu laa doon demee bëgguma woon dem ak défaite dama bëggoon am victoire doo ko génn. lan moo la jotoon exactement. dama xawoon am ay jage sama tànk quoi dafa xawoon am problème tuuti quoi. moom kii bu métti métti sama tànk bi. mu déboîté woon xawoon métti trop nag quoi mais léegi sëñ Fallou. mais ñetti combat yëpp ci tànk bu déboîté boobu nga bëri. waa ñetti yëpp si laa bëri parce que sama combat Tidiane Faye bi ma koy pare si laa gaañu. Hmm. si laa gaañu si lañ doon def ay entraînement ma gaañu si. après nag tànk bi commencé di metti xaw ma nag lan la quoi muy metti metti bu garaaw mais après su ma waxee rek su ma xoolee day sedd quoi su ma ñëwee su may dem entraînement day sedd mais bu ma demee si ay arène su ma demee arène pour bëre day mel ni su ma baaxoo pare day mel dafa yëngatuwaat après nag. kon daal da nga bëggoon dem Amérique pour pour ñëwaat. waaw loolu laa quoi loolu. mais da nga Modou woon quoi da nga liggéey. non Modou ma <laughs> Modou ma demoon naa seeti sumay xarit nag seeti suma ñi nga xamante ne ñoom laa nekkaloon foofu leen nuyu bu baax baax waa Amérique. di nuyu waa Detroit bi ma nekkoon affaire yooyu quoi parce que gars yi samay gars yu baax fa nekk di nuyu africaine maquette yi daaru salaam yi nekk foofu yëpp gars yi xam nga ñoom sëñ Modou ak suma grand ba fekkoon foofu muy sëñ Modou Jaxate xam nga maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sama gars yi ma doon àndal foofu yëpp daal maa leen nuyu mais kon lan moo la yóbbuwoon Amérique exact waaw dama demoon na bi ma demee faju après xam nga dem naa faju yàgg naa fa tuuti nekk nag samay business di xaw a xam nga parce que munoo dem Amérique di business mooy lan pas di dugg si ay affaire di dugg si ay affaire yu mel <laughs> <laughs> no nekkoon ci ay business rek business yi ndaw. mais business comme lan da doon jaay ay oto di exporté di indi di yóbbu wala. waaw loolu yëpp mën na nekk de <laughs> buur loolu yëpp mën na nekk. mais léegi blessure bi sentir nga ni ko wér na. waaw sentir naa léegi moom sëñ Fallou quoi wér na. kon Pape Modou li ñuy def rek mooy ànd ak internet yi seetaan sa combat sa diggante ak Laye Gaynde bu ñu fa jugee seetaan sa combat sa diggante ak Siteu. waaw. woon ca Fesman le grand commissaire. laay laay gaynde ak Pape Mor Lo ngay léew toowaat ay fi ngeen taxaw ku ne taxaw na fi ci ndaanaa ni moo tax billaay àddunaa ngi noonu laay gaynde Pape Mor doon na jël tànk bi jëlu ko dix waaye gaynde ba dix am am taay waaw wute wute nag ñu xale bi bëreel ñëpp gis nga daf koy xaar rek daf koy xaar rek. daf koy xaar rek jox ko combat bi. voilà te ko coono bi. lay lay la laa lay lay la laa lay lay la laa oh. tekk na ko. allahu akbar. Pape Morlo si dem na. day mépp à l'arrière Pape Morlo topp ko mu dem gauche dem droite. waaw mooy wax loolu consultant la tey. lay lay la laa. xoolal Max Mbargane. taxawul toogul. léegi léegi bu fopp bopp bi. Alaaji Malick Thiandoum li nga doon wax ñëw na. pression baa googu. bu yor yenn xol yi màccal tàngal ga. buñ la màccal leen ko tàngal. jàppal ko nga jàppante. si tànn fes ko si tànn fes ko si sa plaqué na ko. si tànn fes. si tànn door gauche. si tànn fes. jërëjëf Pape Mor Lo ñu gis sa diggante ak Laye Gaynde Laye Gaynde ëppoon la ci pois ëpp la ci taay nga bëre ak moom bëre bu boobu mën nañ jël soit tout sa diggante ak Laye Gaynde waa parce que Laye Gaynde xam nga ku baax la quoi kooku moom ku baax la parce que bëre nañ même après xaaru sax ma ñëw këram moom moo ñëw sama kër ñun waxtaan xam nga nuyoo mu nekk grand bu nice. grand bu bi combat bi combat bi. bi man Laye Gaynde bi ñuy dugg si géew bi dama doon perdre dama koy yenu loolu laa waxoon Père Birahim ma ne ko kii de bu arbitre sifflé dama ko yenu mais boobu ak doy ponk laay gaañ nu mu toll gars yi Père su ma xee mu ne ma tey ngaa yem kii mënoo ko yenu mais tàtte naa ko sax mais dafa diis quoi. jàmbaar la nag quoi yàlla def ma bëreeg moom daw dem file ko daw di ko jéem a yenu mu mu bóof sama kaw ma daw génn si pokotaan bi ñu loo teewaat ma kepp triceps bi dox ak moom. xool tànk yi taxawaay baaxul mu teg ko daw moom. teg ko bëgg ko waaw. keroog mu bokk ci victoire yi dàq ci say victoire. dëgg la euh, jëli bee neexoon. Mhm. mais du adversaire bi. waaw jëli bi moo rëy quoi. Mhm. parce que xam nga man bëri na sama combat xam ne yëpp ay jëli spectacle laay daan. Mhm. ndax keroog gis nga dem keroog ba ci amateur. def loolu nga naan <laughs> waaw <laughs> xam nga rek dem su ma demee gars yi xam nga sama sama jël yi ma daan yëpp boo xoolee yëpp spectacle la. man boo xoolee làmb jël li ma si daan yëpp spectacle la benn combat rek laa xawoon bëre combat bu ma xaw a kii muy sama combat Tapha Boy Bambara te boobu xëy na ki ma doon bëreel xaw ma xam naa ko nii mais xaw ma ko baax jox ma ko woon cër bi waaye moom it day mbër mu saay saay malgré malgré yi koy dal mais mbër mu mbër mu mën a bëri la ko jël da xam ne ndaanaan la te ñeme na du ragal te gaynde la day xeex man bi ma ko jëlee jox ma woon cër combat bi mais après xam naa lépp dëgg la après parce que dañ ci ay coono yoo xam ne <laughs> du ma ko nettalee. jaxase na la ba nga jaxase na ma dóor mm. bàyyi ko fu ne. Mm. fu ma tourné sama bopp bi kurfe ji jóg ma ah, eh, moom morso la quoi. bu may boo jeexal jàmbaar la quoi yàlla na ko yàlla defal jàmm quoi. Mm. nga jóge ci nag daal ci Siteu. waaw ma dem boobu Siteu nekk phénomène. Mm-hmm. mais est-ce que Pape Mor Lo jamono boobu bu doon am nga ay conseils yu baax. Mm-hmm. nga jóge ci Tidiane. mu nekk lan saar. comment boobu dañ doon wax naan c'est le diggante ak le professeur la ak le génie de l'arène yàlla def nga am ci défaite boo xaw a contesté yow ndax li nga contesté nee nga Tidiane daf la daf la maanaam daf la cote te boobu dëggaloon nga ko aussi mais bi nga demee CNG amuloo fa dara. donc est-ce que dellusiwaatoon dal ci site est-ce que jaadu woon la par rapport ak fi nga jugee. waaw parce que période boobu man dama yaakaar ne boo yooyu ñooñ ñëpp maa leen mën man loolu laa jàppoon quoi. si Tidiane Faye bi may bëreeg moom xëy na moom moo ma mag si làmb bi ma dawee bi ma dawee sonk bi ma daf ma képp kottu ma bloqué sama nooy bloqué nii sama nooy bi ak sama gémmiñ dafa yàgg a bëree jaar na équipe rek yëpp mm-hmm. bi mu keppee munuma nooyi man sama xel yëpp mu si dindi loxo bi quoi mm-hmm. bi ma roccee loxo bi di dindi loxo bi rek mu waaye bu ma siggi génnee sama bopp pour nooyi mu roof ma caxabal yéeg ma mais kott bi dafa yàgg mm-hmm. yee sama combat surtout gis nga nu mu demee combat bi Siteu dama ko faax daf ma daw song dóor ma hypercule ma faax ko mu daw rëpp kaat abit man dama yaakaar combat bi jeex na ko mhm. mu jógee taxaw nag xaw ma at bi xam ma man xaw ma après mu dóor ma hypercule daw plaqué ma mais man pour combat pour man combat bi jeex mhm. que dama jékki mhm. boobu dugal nga recours naa boobu dugal nga parce que xam nga boobu jaru woon essage fekk jaru jaratul woon may recours quoi parce que xam nga Siteu koy bëre moom dugal recours yàq sa xaalis si yenn affaire yi gars yi dañuy faral di. da nga da nga gëm ne dañ ko jàppal tànk quoi yow loolu nga gëm mbooloom quoi ndem jàmbaar la bërekat la ñafekat la jàmbaar pire la parce que xam nga bu déggante na bu bëri juumte amee sax si combat man maa ko def parce que maa ko daw fàq mu rëpp ma yaakaar ne quatre appuis ma bàyyi saxaw si gi mu door ma percule plaqué ma mm-hmm. mais mais bu la métti la. waaw métti na ma trop. métti mm-hmm. na ma trop que boo xoolee ñi ma daan ñëpp sax daf ma métti. parce que mm-hmm. daf may leer na bu doon bëri ñu ma daan. billaahi wallaahi sa diggante ak Amath Deme. Amath Deme waaw xoolal yooyu. Amath Deme Amath Deme combat yooyu ñoom dama ko ñaax mu métti mu trop parce que am naa ne ñii mënuñu maa daan. mais est tamit Pape bi nga fi jógee. Mhm. li nga fi bàyyi ci ay défaites. Mhm. dafa xaw a bari. yeah bàyyi naa fi trois défaites dama tegale trois défaites. waay waay ëpp ko sax. yeah trois xam boo jëlee Lac Rose. Lac Rose jël jël Tidiane jël Amath Deme quatre ci champion bu bu toll nii yow. du yoon. damaa jiw foofu parce que xam nga rek comme maa doon bëre ak métti métti waroon naa arrêté quoi ma jëlee ñaar defet waaw mais nag mais mais mais Pape la pratiquement nga am nga moom bu fekkee ni que ci am na ñoo xam dañ naan non non day sóob moo tax loolu nag moo tax xam nga man côté boobu sax du ma sori côté boobu du ma nekk naan lii parce que koo si wax mu ne dafay télémal victoire jàmbur mhm. xëy yàlla moo ñëw ak ay mbiram ñu daan moom maa ngi leen di koy ne leen ci victoire yi jik tamit ma ci daanoon nga xam ne rek ñëw naa te ñoom it ma daanoon ñëpp am na si ñoo xam ne dem na si ñoo xam ne demuñu comme demuñu nag war nañ mën a bëre waat kon daal ma ci daanoon damay bëre ak yow hmm. ku pour bëre ak ñoom mais nag Pa Modou Lo xanaa de booy jël fi muy Tidiane ngay jël ndax Tidiane gëj na gëj na bëre te moom it amel na la bor waaye lan saar gu ma nekk di fa dugg ñaar yoon non Tidiane amel na ma bor mais man bu ma sañoon bëre ak ñeneen quoi aha bëggoo Tidiane non bëgg naa ko mais su ma sañoon bëri ak ñeneen quoi. parce que mhm. damay bëgg di bëri ñoo xamante ne xam nga. waaw mais Tidiane waaw d' accord mais Tidiane daanaan la pas moral moo mujj sa kaw. waaw Tidiane daanaan xam nga comme li ma la wax sànq nee làmb tey dafa am ñoo xam ne ñu ngi bëri di daan di dem. am mhm. ñoo xam ne ba ma fi jógee ba léegi dama xool fi ñu taxaw rek lañ taxaw. waa kon Tidiane Tidiane dafa taxaw de bi mu jógee ci sos. waaw xam nga loolu tamit da ngay bëri koo xamante ne mi ngi dem mhm. quoi. nga xool sa bopp Ameth Deme yee bañu ma ko bañu ma ko bañu ma Ahmed Deme. bañu ma après moom ci booy boobu la jógee feu rouge. gis nga seen combat mu demee moo tax ñoom ñëpp bañu leen ku si ñëw rek damay a jóg. Mm-hmm. daan nañ ma nag amel nañ bëri ak ñoom yee. waaw euh, am rek. ñu fi a ñor. Mm-hmm. a ndax def nga ay sortie ne nañ ma ko joxaat. Mm-hmm. non defet boobu mën na defet boobu mën na génn suma xel parce que du sama. non non non foofu bu fa dugal nees quoi xam nañu nees gaañ la d'accord mais aussi bokk leen écrit quand même. non boobu sax nekkul bu ma gën a metti de. Hmm. sama combat non méttiwu ma. ndem defet bi metti na ma. ban defet moo la gën metti si biir combat yooyu am na combat mu gën a metti. te maa ngi ñaan yàlla. mooy ban mooy ban. non ma ko wax sa diggante ak Lac Rose. <laughs> non du sa diggante ak Lac <laughs> <laughs> na sa diggante ak Ameth bopp gëléem fii nangam ak nangam. kon xëy na combat boobu nga wax ni moom moo la gën metti. mën na nekk combat yi ma daan dafa metti parce que ni ñu ma daanee xamul tax mm-hmm. dañ ma daan daanu cuune maanaam dañ ma daan ak sama Mm. ak ak bëri bi na kenn ki xam na ne man sama combat ak moom favoriser favoriser wu ma xeex bëri laa favoriser. Mm. ma daw di xeex ak moom mu daw dóor ma dóor ma crochet. ma kaaw dóor mu ba ma keneen ki dama ñëw bëréew ma dama ñëw jàpp ngi li taxaw. mun bugguma def benn action mu daw roof ma caax wala yéeg ma. combat yi sax moom gën a metti. parce si te li nga moo ëpp loolu mu war ma daan daan ma ñeneen ñi am na combat yoo xamante ne. dama waroon wane bëri mais Pape instant bi tey bu promoteur yi ndax ñoom ñoom Pape du Fall ak may dégg ñoom Assane Ndiaye may dégg ñoom Assane Ndiaye ak may déglu fi ban combat nga jàpp ne kéw mooy bi la gën a ñor boo xam ni boo sañoon saison bii. Mhm. di nga ko bëre. waaw non gars yi ñu ngi may wax ay combat nii ñu may ay combat non yow ban moo la gën ñor yow ak tant que pas Mor Lo waaw c'est que xam nga làmb yow yaa ma gën a xam buur mbër boo fi ne kii moo ma ñor suba day mel ni day mel ni yoroon ko pare doo ko. waaw mais mooy neexal lamb aussi loolu mooy neexal lamb loolu ñoo ñeenti ñëw li fi lépp ku ci nekk amel nga ko bor waaw donc yow sa digganteeg Siteu événement la ndax Siteu man je sais que mu mu jubali ci jos mm-hmm. viré ci yow mooy li gën ci moom dëgg la waaw moo tax man combat yooyu bàyyi ma fi kenn man li ma wax nee naa la combat yi bàyyi ma fi kenn xëñ na nees nees borom baax la sama xol bi dafa rafet kooku sama nees la bokk yow sax xam kooku sama nit la nees yàlla boole nañu ba pare loolu nit mënu ko dindi kooku suma xarit la quoi kooku daal moo xam naa ne duma ma bëre moom mais ñeneen mbër yi fi nekk yëpp ku ma si jox damay bëri yow. Hmm. mais Pape nga jóge États-Unis ak Bruce Lee ak Bruce waaye nga jugee Amérique. ak ñoom Ousa de. waaw waa Fass yi <laughs> ñooñu samay gars yi. Ah, ku ne xam na ni. Hmm. Pape Mor vivacité lay bëri ak rapidité. mais tey poids bi ma gis ci yow. Hmm. ak façon bëri bi ngay bëri. est-ce que méngóo na. waaw non poids bi dama koy wàññi su ma amee combat parce que bi may ñëw ëppoon naa nii. may ñëw ëppoon naa nii mais. dama ne woon ba à su may nooyi sama nooy bi day damay nooyee gémmiñ quoi. parce que li mm. ma jëloon ci poids dafa bari. Mm. te sama yaram warul jël pois boobu. après nag si laa wàññi sama pois ba oyofaat ko mm. mais ëppoon naa nii avant may ñëw. kon Pape dafa ñëw pour toog. non dama ñëw pour bëre. pour bëre fii ak 6 mois. fii ak 6 mois ba set mois kuñ ma si jox pare naa. ay Assane Ndiaye sama gars Assane Ndiaye moom sama gars la Abdou Fall noonu gars fi nekk ay ñoom Kaañi ñoom sëñ moo Niang gars yi bu man ñëpp. soo bëree ba pare ma bëree ba pare. pare léegi am ngay kayit quoi. non <laughs> non man man <laughs> dama dégg nga Pape Modou am na xaalis <laughs> xam nga donc donc doyewul làmb dara dafa ñëwaat nii. non c'est xam nga genre xam nga genre alam léegi bëre. bëre man. mu am ma si def dama si bàyyi trace. kon tey mënu ma tëb rek bàyyi ko ndax samay supporters amel naa leen bor. ñi ma bëgg amel naa leen bor waa surtout waa Grand te bor boobu foog ma fay ko même tey su ma doon bàyyi làmb damay génn ak mais ma génn ak défaite ma bàyyi ak défaite quoi. parce que dama amel sama dama leen tàmmal lu neex ba si yàgg mu demee nii ma dem ma dem tukki tey ma gis ay affaire yu bëri xam nga Grand mi sama fan club bi gars yu bëri daal xam ma yu bëri moo tax tey xam mu ñëwaat bëgg combat nag su mënul am combat nag ma xam ne mooy loolu mais instant yii pare naa pour bëri ñëpp te man tàngaluma dara ku ñëw rek baax na. Mhm. Euh, xanaa rek ñu dellu ci suñu beneen laaj bi mooy. sa diggante ak Pape Birahim. Birahim Ndiaye. waaw parce que gars yi ñu ngi ciy wax lu ne quoi Pape Moro bi muy dem tàggul Pape bi mus ko woo lijjantiwu ko. bi mu ñëwee nangam naan sa diggante ak Pape Birahim ndax Pape Birahim. Mhm. aussi ku xam Pape Moro moom moo tax ñu xam ko. dëgg la yow ak Saloum Saloum amee ngeen ko jukkal sa relation ak Pape waaw Père Birahim moom xanaa gars yi xanaa dañu gisu dañu xoolul parce que Père Birahim ku dem foofu noonu ci moom la lay wax ne la Pape doom la. Pape moom noonu la mel quoi mën na. kooku doom la mais bu dul dara Père Birahim bi ma sama dara ump ko. sama bi ma ñëwee fii bi ma ñëwee Sénégal damaa teg sama saak lan ma dem këram fa laa toog ñu waxtaan lu bare bare. bañ defal ma fa benn interview sax quoi kon nga xam ne Père dara du ñu réeroo ci dara. sama Père la sama xarit la sama lépp la ba ma demee a tey yàgg na mais musul toog fenn wax ne Pape Modou lii non. parce que maa ngi koy dégg lu may dugg dama koy woo wax ko parce yàlla moo def mu bëggal ma boppam man tamit ma bëgg ko mu nekk sama père bu baax di ma jàppale ba ma toll fii kon kooku du ma ko fàtte quoi. sama père la yàlla moo ñu boole maa moom du jeex. géej la quoi ak sàkku xam-xam. Mhm. ku xam ne Pape Modou Lo la dëkk. Mhm. daan entraîné sàkku xam ci ginnaaw gi waa Grand Médine créé écrit mhm. bu ñuy wax Dóor soxla woon ci Pape Modou Lo mais xëy na boobu fekk na nga tukki. léegi nga ñëw fekk fa ñaari situation yooyu. waaw ok waa parce que Dóor waar sama écrit la. man Dóor waar maa ko moom ndax Yékini Junior moo fa nekk ak ñoom Brise de te Yékini Junior sama grand la Brise de sama xarit la ñooy ànd tey Grand Médine ñun ñëpp xam nañ ne bu ñu waxee mbër foofu Yékini Junior moo fa njëkk a hmm. takk ngemb ba muy bëreeg nees man boobu bëreegu maay dem stade tëngeej bi lañ bëree woon ma dem si seetaan combat boobu hmm. tey mu taxawal Ikri ma koy rafetlu bu baax Ikri boobu dama fay dem di contact dama fa doon dem avant may dem. mais bokkoo fa quoi man Yékini Junior dañu doon ànd entraîné. waaw mais d'accord mais bokkoo parce que benn la falaa bokk ba falaa bokk exemple mooy Grand Médine laa dëkk mënuma génn si Dóor waar. mais sa licence fu mu nekk sa. mi ngi sa xam-xam waaw benn la quoi parce que man <laughs> ñooñu du ma ñoom Yékini suma xarit la. Brise de suma xarit la gars yi fa nekk yëpp sumay gaañ lañ. Yékini day am combat damay am combat ñu ànd dem Digne. ma yéeg si otoom ñu dem kon kooku suma xarit la xam nga. mais nga ñëw fekk sàkku xam-xam situation bi mu nekk. waaw par ba ngeen fay nekk. Mhm. doole bi. Mhm. champion yi di génnee dafa rabaissé wu est-ce que tamit sa départ joué wu ci. waaw non saako xam-xam saako xam-xam kenn du ko tudd te doo ko amaloo mënul nekk parce que saako xam-xam xëy na père Biraay moo sanc équipe bi sama père ñoom Saalum nekk fa ñoom DJ gars yi ñoom Sonatel gars mm. mais saako xam-xam dama fa zérool boo xamante ne doo saako xam-xam te du doo ko amaloo xëy na nag yàlla mooy def loolu quoi waaw mais su ma sañoon tey ñun ñëpp ñu dajaloo toog waxtaan defaraat équipe ba mu baax mais gëm nga ne am na problème. waaw non problème bi si biir néeg bi xam nga mooy loolu mënul ñàkk quoi écrit boo gis day am problème mais ñun Saalum suñu grand frère la tey DJ moo fa ne gars yi ak ñoom Sonatel mais nañ toogaat ak ñoom ñu toogaat waxtaan defar écrit parce que lu fi am sa lu fa avancé si ñoom seen loxo lay mujj Père Birahim tey wàllam wéy na def na carrière am ba mu rafet ñun ñu nekk si écrit bi musul lekk sama un franc man ba ma dalee bëri ba tey musul dagg sama xaalis un franc xanaa des reliquat lu ñu seeq mais sama xaalis sama kaay mu doon la gaalaaj kon war nañ mën a toogaat daal suñu biir ñu waxtaan defaraat écrit bi ko man loolu laa gis. Euh, Pape saison bi passé lan moo la ci ban combat moo la ci gën a marqué. saison bi passé. Mm-hmm. Euh, diggante Modou Lo Gris Bordeaux diggante Sa Thiès Siteu diggante Ndongo Lo ak maanaam ban ban ban combat moo la ci gën a marqué. waa combat Ndongo Lo ak kii. booy bi dekk Géejawaay tur bi laa fàtte. ndongolo ak euh, ñaq jariñu. ñaq waaw ñaq jariñu exactement <laughs> ñaq jariñu. mais nag combat wu gars yi dañuy ndongo daan nañ ko ah, ah ndongo naanaan la de sama booy la <laughs> xam nga ndongolo sama rak la. Mhm. ndongolo bu dul dara dañu bokk waa maag moom. sama sama rakk la et du dugg si dara te yëgu ko mais bi ma nekkee fee. mais amul njëriñ quoi. non jàmbaar la. am na doole léegi ñu ngi màgg li nga am nii sax dama ko jàmm may ko ci ndam quoi. <laughs> parce que booy bu baax la booy bu yaru la et yi xam bëgg nañ ko waa grand bi ñu ngi ci ginnaawam. Mm-hmm. ak ñoom yi ki ni genre mafia bi yëpp daal gars yi ñu ngi seen ginnaaw di leen jàppale. Mm-hmm. di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm ñoom daal yàlla may leen ñun ñëpp ñu fa nekkoon yàlla def na ñëw naa nag dañ war a yëngalaat rek dajale mm-hmm. gars yi fan ci bi taxaw ñu dekkalaat cosaan yëgal esaat bi coow yëpp. Pape loolu ngay tàggoo comme ça waxtu mucc. waa li may tàggoo mooy maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Grand Médine aw ma seen fay di nuyu gaa yëpp bàyyi ma ci kaw ba ci suuf sama waa fans club bi Tëngéej waa Grand Médine Grand Yoff xaar yàlla Arafat ñëpp maa leen di nuyu bàyyi ma kenn. di nuyu waa euh, Amérique xam nga maa ngi nuyu waa Dutroy mexicaine fi ma jógee nii xam di nuyu sama grand bi ma dalaloon foofu xam nga muy Serigne Modou Diakhaté xam nga di nuyu ñoom Abdou Dieng. ay ñoom Babacar ñoom sooy bu Lamine gars yi ma fi yaay foofu yëpp di nuyu sam benn jigéen bu baax bu nekk foofu comme dafa du ma tudd turam naa bàyyi noonu mu <laughs> sedd maa ngi koy nuyu di nuyu ñaari doomam affaire yooyu quoi maa nuyu ñëpp ñu ma bàyyi foofu di leen char di nuyu sama benn gaan baaba sama tukulóor bi ay ñoom seex sëñ Mor ñoom kii Omar bu ndaw ak Omar Diom gars yi daal foofu bàyyi ma kenn Lamine Youssou ñoom ñëpp maa ngi nuyu ñëpp bàyyi ma kenn di nuyu suma gaan bi ma àndal ñaa Abdou ñaa xam nga di ko nuyu di nuyu ñoom Matar Lamp gars yi mafia bi maa ngi nuyu ñëpp di siyaar gars yi di siyaar ñu fekk waa Sinico ak yow tamit ku baax nga. maa lay bëggee. jërëjëf euh, <laughs> Pape Modou Lo tamit buur nga may ma quoi na sama koñ dafa am dëj quoi. moo tax tey sa xam nga yaa ma doon wax émission bi ma ne la munuñu ko defee foofu parce que sama sama dëkkandoo dafa gaañu quoi Idi. sama dëkkandoo bu ma jàkkaarloo kër ak papa laay jow mi wàññeeku woon fekk ma sama président fan si club gaay waaw Baye Lamine Diaw waaw gaay yooyu yëpp xam nga ay ñoom ak Ada Adama Diaw ah, maga kiyam bi jarbaatam ñëpp fekku ma fi ma leen di jaale ak idi may jaale waa Grand Médine ñëpp seen ñi fi jóge nii xam nga di leen ñaanal mu gëj fa te yàlla defal leen jàmm fi nekk gën a oyof seen kaw quoi suuf gën a oyof seen kaw jërëjëf foofu nga tëjee rek xanaa di jaar suma bàyyi Mouhamadou Lamine Diaw mm-hmm. di càmbar ci xadara Cheikhu Tidiane mm-hmm. di kenn ci sa Mouhamadou Lamine Mansour mm-hmm. Baye Mouhamadou Lamine Diaw di kenn ci man waaye di di di nuyu sama benn rakk mm-hmm. bàcc seeraas di xale boobu tamit bu baax xëj na ndogal rek mooy ñëw di ñaan yàlla foofu mu nekk yàlla na ko fa yàlla génne ci barki Cheikhul Khadim di amaan mbégte rek ci Cheikh Fallou Ligue Nicolas ci bërki démb ni ko yoon àtte seetal ko lool mu neex axlu làmb jëpp ndax làmb ji namoon na ko kon Cheikh euh, Cheikh Fall Luc Nicolaï ñu ngi naan soyez le bienvenu ñëwaat nga ci sa kër amateur yi jooy nañ ko promoteur yi jooy nañ ko képp ku nekk ci làmb ji rek jooy nga ko te lii am tey loolu la ñu bëggoon yàlla na sax te yàlla mucc la ci mucc la la ci yenn coono mucc ci bépp jullit di leen wax ni rek lii la ñuy indi leen dégg ngeen suñu digganteeg Pape Modou loolu lu yàgg la. Eh, du tey xanaa di nuyu grand Birine gépp li ci jiital suma xarit Yékini Junior ñoom Brise Mer waaye di nuyu grand Fadel suma xarit moom itam. am na eh, combat waaw waaw waaw xam <laughs> di nuyu agogo moom itam sama. <laughs> booy baax la waaye di nuyu Père Birame Ndiaye. <laughs> Mm-hmm. yàlla sàmm ko te yokk ko. Mm-hmm. waaye fi ma amoon rek fa laay tëjee mooy sàkku xam-xam. Mm-hmm. Saalum ngeen bàyyeekoo. waaw moom loolu fa la bàyyeekoo. nit du sànni àllam wala mu di ko tra eh, wala mu di ko tasaare dem leen ngeen toog waxtaan ndax làmb ji soxla na écrit bu mel nii sàkku xam-xam kon du ma tëj benn yoon nag te gërëm mu ma suñu xarit suñu soppee ku jàmbaare ku baax loolu di ma Momar Ndiaye nekk directeur agence Sonatel bu Tivaouane ci jàppandal gi muy jàppandal doomu aadama yi kon ma Momar Ndiaye ñoo ngi lay gërëm di la ziar ak di la ndokkeel di ziar it agence Sonatel yi nekk Tivaouane gépp waaye nag Mansour dama wax ne du ma tëj te ziaru ma nag sama ñaari avocat yu baax yi nag njaag ba borom ndikkumaan ak kee xamante ne que mooy maître Ibrahima Diagne di mag ci maam Kumba Diagne su ma ñaari avocat yooyu buur nee na mu ngi leen nuyu di leen ziar te di leen ndokkeel kon mbokk yi li la indiloon seen émission di coow li ci làmb ji ak seen mbokk Bour Gueweul di leen jox dig daje ci benn numéro ci seen site des références site bi leen gënal site bi ngeen taamu di senego point com ñun ak yéen ci làmb jamono bu ne